jërë ngeen jëf mbokk internet yi mbokk amateurs yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare Momo production moo ñu fi woowaat dajale ñu fi ginnaaw bu mu jógee ci journée bu ama am solo yàggul dara doxoon ci diggante Thiatou Daouda Fall ak Youssou Ndour ngeen gis na nga xamante ne moom la def stadium Iba Mar Diop li mu wax rek jeexaat foofu rek doom delloo fa sab loxo mu ñëwaat ci beneen combat espoir liñ gisoon ci doy noonu mu war a dox ci diggante Kaw Gourdin ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandiaye numéro 2. a naa ni Modou Anta dina ma wax recours bi après nu mu demee moom ak Ronaldinho ñoo mujjee bëre moo amoon ndam nag recours amoon na ci xaw ma moo moo moo mujjee moo ñàkk kon ci defet la jógee ki ñu ci ndam digganteem ak Bébé Bismi su ma jiw moom la mujjee bëre. musul daanu comme ni ko Khadim Anta Seck waxee. le nag la ñu war a bëri incha allahu rabbi loolu yëpp dinañ ci waxtaan ki nga xamante ne moom mooy Modou Baye Fall comme jot amul ndax dem dañoo jóge ci bés bu am solo te te presse bi instant bi dañoo yàkkamtee dugg ci roq yi pour def coulisse yi dañu ñëw waxtaan bi rek directement ak ki nga xamante ne moom mooy Kaw Gourdin bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet yi ak wax ñu lan la fas yéene ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandiaye numéro 2. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ sant di jërënt bi jur di sant di sant waa Dalifort yëpp rawatina képp kuy bëggee Kaw Gourdin rek Kaw Gourdin fan si Kaw Gourdin fépp fu ñu mën a nekk rek Kaw Gourdin moo ngi leen di bëggee Lamine maa ngi leen di bëggee di bëggee ñu fi nekk ñëpp rawatina sama adversaire euh, Baye Mandiaye numéro 2 maa ngi koy nuyu bu di nuyu promoteur bi Modou Baye Fall. sa adversaire gars yi musul daanu daanoo gul. Ah, daanoo gul. Hmm. Ah, loolu am solo. daanoogul am na solo. waaw. koy leeral. waaw. Ah. dinañ si ñëwaat léegi. Baye Mandiaye bégg nañ la ci loolu. sant Serigne Touba rek salaamaaleykum onze billahi mina seytaani rajim ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di ñaanal sama yaay yàlla may ko gudd fan wér gu di ñaanal sama yaay yàlla may ko gudd fan wér gu yaram di ko ñaanal laat ba mu fekkee suñu njëriñ ci bàcc Serigne Touba di ñaanal sama taawu yaay Abdou suñ yàlla may ko xéwal Mm-hmm. di ko ñaanal sama mag tamit mbii da ñu koy wax Zos. yàlla may ko xiiwal bañ teral maire bi jut ñëpp parce que sama famille yaay kenn amagu ci ay millions te dañoo war a am teral maire bi. Mm-hmm. di ñaan rek fii balaa déwén. yaay booy jóge Mourtani ñëw toog suñu wet. ñu teral ko ci baaj sëñ Fallou. Mm-hmm. di nuyu sama gars ma àndal ku ci mel ni Malick Parisien Jibi Balde. waaw di nuyu waa guy gi. Njett Mbaar moom si Gunaas. xam nga di wax ne seen doom amatina combat waaw comme d'habitude ñu ko daan defee di tamit sama adversaire Kaawa. Hmm, Kaagu de yaa ngi koy kii de ñoom woo ko xool sax ci bët. non moom. yaa di xool de wala ngaa bëri kersa. ma koy xool yenn xool yi tamit. Hmm. waaw góor góor ko xool yenn xool yi hmm. waaw mais biir góor moom dañ xoolante incha allah. dañ xoolante nee na nañu leeral di wax ni daanoo góor. waaw loolu sant yàlla rek. làmb moom képp kuy bëri di daanu. ñu ñaan yàlla yàlla na yéex. fii yàlla rek moo fi ne kenn neeku fi mm-hmm. waaw mais lii du jom fit fula ak fayda mm. non dama koy joxe incha allah ci kàttanu yàlla xam nga kii ngay bëre kaaw xam naa ko xamul làmb rek laa xam de kaaw bu isa nañ dox ba dajee sax musul am de mosoo dem saan ko non non benn moog caat daara faal waaw ah. boobu waaw tapal xaju fi waaw boobu gis nga ni ngeen andee caat daara faal ak na mu bëri moom nam ko def waaw nuyu caat sama waay ji di ko siyaar baax waaw mm-hmm. ah, loolu dara loolu jàll na loolu du kaa. loolu du wala moom du kaa. non loolu du kaa. moom na kaa la. non non. du kaa. Ah, waaw non instant noonu la war a mën a demee kaa mënagul am waaw. parce naa quinze jours des na. waaw. kaa ah, mënagul am. Mhm. mais dama bëgg yéen ñaar ngeen waxante nag ku ci nekk lan la namu ca moromam parce que leen fay nekk rek di nooyal nii de. soxlawuñ loolu de. Lamine am ci diggante bi parce que xam nga rek. combat bi li ci des bari na bariwul mais lépp li nga xamante ne war nañ ko ci. deux mois rek moo ci des lépp lu ñu ci war. lépp lu ñu ci ah. allah dinañ ko def. Mm-hmm. waaw. yow yaa ko jox premier rafetam. incha allahu rabbi ndax yaa ki ko jox premier rafetam. waaw ma ne la incha allahu rabbi. Ah. sa premier rafet nee na moo koy jox. ah waxul dëgg waay. Ah? dëgg waay. kii tuuti na pour jox ma sama première défaite c'est que combat xam la moom si neex. Hmm. dama koo jël di déglu yenn vocal yi loolu moo gën a tax ma jël. combat non du moom quoi. Hmm. mais yenn vocal yu bëri. voilà dañ koo jox favori ne moom moom ma mën. yaa ngi dégg ah. daa góor balaa nga koo yab. da koy ñam quoi. kaaw laa gën a maîtriser ci mbëri. te bu ñu bëree ba pare di nga ma dékk micro ma ne la laa la waxoon. non loolu du ma ko wax fi mais dama ne. xam naa ci moom lu ëpp ñett. Hmm? yàlla xam nañ dama ko maîtriser. li may wax ne du micro yi ñoo ma tiim nii. Hmm. li muy bëre daanu ma. làmb nag làmbu la. mais man ma dem waaj ji ñëw. de dara desul ma ak moom ñu taxaw si géew bi dina gis beneen Baye Ndiaye bu dul bu mu gis mu toog nii. da nga ko maîtriser ci làmb wala nga ko maîtriser ci ci baatin. maanaam ci ngàttal. ba may gën a nekk xale. dem sama premier voyage Gambie moom xam na li may wax ya daal di ñing hmm. mos na ma woo di tëgg suñu boobu moom ma raw sax ci làmb man ba may toog Ibama di ko seetaan bëreegu ma arène sant yàlla quoi ba rampe naa ba war a bëre ak ñoom ñoom ñëpp sumay grand lañ rampe naa a bëre ñoom damay bu baax a baax yaa ngi dégg mais boo bëggee dégg dëgg. Hmm. kaaw ñaanu ma ko dara te ma may ma jël. wax ñaanu ma la. te loo ma may ma jël boo bëggee ñu deewoo man ak yow nañ ko sàmm. Lamine. non non Baye ah, comme ni nga ko waxee non Baye Mandiaye moom moment bi amuñu leen lu muy wax ci moom parce que daa lu mu wax. daa am lu mu wax te lu wax moom dañ ko koy nangul mu ne ñu nay mag lañ. te neen daf ma maîtriser. mu ne daf maa maîtriser bu baax. vocal moom moo talee vocal man taluma vocal. nee bu waajee. ñun dañoo noppi. léegi nii. ah. Mbacke alxuraan maa ko doon pare. non mais fii du am image bu baax kaay nga toog nga toog. mais yow yow loolu la daal yow Mbaye Ndiaye. maa ko gën a pare téeméeri junni yoom bu ko weddee ngeen fay caméra bi ñu bëri ba pare ñëwaat toog fii. déet ñun kay dañ fay caméra yi. kii géewal ci bi kii maa ko gën a yàqu fuuf. boo bëggee dégg dëgg. kii buñ taxee ci bu xeex ak man ma duma ko bëree ma daan ko kii. loolu loo ko pële loo ko pële dama ko wax keroog ñuy waxtaan ma ne ko jëlaguma sa avance aw ma lu may wax ak yow. ak ma kaa jox cër nag. yee mais làmb taxaw na quoi. foofu cër day dem toog xaar. sim nga làmb taxaw na boobu ay cër respect dana dem toog ji xaar moom lu mu mën ci man na ko def man ñaanuma ko. bàcci maam Seera Fall kii moytuwuma si moom lu toll ni tarafatal ay nit du ma ko arrière centimètre kaaw mii nii maa wax fii bu arbitre bi sifflé man maay dox si kawam wala rek ñu daje. làmb ji ma ko ma daan ko. man gisuma favori sama kanam. te na naa la lii du làmb coow ci man. joxaguñ ma sama làmb coow. Hmm. xëy na nag comme moom nu mu ko mënee xam wax moom. kenn ku nag ku mënee na moom yàlla may na ko mais ñun làmb moom wax dëgg yàlla tollu ci pour wax carrément parce que joxuñu guñu guñu ki nga xamante ne moom lañ ñu war a jox. Mhm. waaw mobilisation nag nga nar a ñëwee parce que gis nañ sa combat Thiatou Daouda Fall indi woon nga lu bari mais sa dernier combat moom affaire yi wàññeeku woon na. Mhm. bii lan lañ mën a xaar ci yow. waaw liñ ciy xaar mooy dañuy woo waa Dalifor fépp fu soppee kaw Gourdin nekk Kaaw Gourdin moo lay woo te di leen xamal ni Kaaw Gourdin am na bés. waaw bis la comme yeneen bis yi la rek wax dëgg yàlla mais bu ma sañoon ñu doon mu doon la nga xamante ne comme ni mu ko waxee mu taxawee noonu. mu dëggal boppam voilà. mobilisation. Kaaw mun naa laaj ba pare ah. kii nii toog nii kii. lan laay moytu ci moom quoi li ma wax te dëggal lan laay moytu. yow lan laay moytu li ma wax te dëggal sama bopp ci yow. li nga war a moytu mooy fi ma jaaral say morom. ma jaar la fa. man nag fi ma jaar yow say morom ma jaar la fa yombut loolu. xam nga li xam nga mooy wax ji. da nga may déglu ma la xam nga mooy wax ji. yow góor nga mooy góor. mënul ñàkk dañuy xeex bëre. loolu jarul sax ay boo ma xamee man xam nga ni kii du du ragal amul mbindeef mu yàlla bind boo xam dinaa la xof lu toll centimètre xam la la ñuy ñaan yàlla. yàlla yóbbu ñu ci bis bi ak jàmm ak salaam du da du mat lan nga wax. yow boo doon defloo ku xeef du gis jël yow une minute nga wax. Hmm. man xeef laa la may Kaw Gourdin yow. bu wax bi sifflé man maay dox sa kaw. te li nga wax fii bu. yaay diriger taxaw doo ko waxaat. yaay diriger daal. man maay diriger nga naan may xale bu ndaw. baa bàkkee alxuraani karim man maa leen ko wax fii kii du mu ko arrière centimètre. man ak yow ku gën a ku gën a doon xale ni ma ko waxee sama combat yëpp. yàlla na la yàlla may ndam ku gën a bëgg làmb yaa na la yàlla ku ëpp doole ci journée bis bi yàlla na la yàlla ku ëpp fit ëpp sañ-sañ yàlla na la yàlla ku gën a ñeme entraînement yàlla na la yàlla may ndam ku gën a mobiliser yàlla na la yàlla may ndam waxal amin ci yooyu xam nga géwél moom bu reppee ci xare lu mu jim da koy xeeb ah, dimbali nga naan géwél bu kii maa moom bokkuñu ci dara yow yaa mën a sóob yow yaay kan xam nga tey jii dafa am eh, sëñ bi eh, yow yaay kan ba nga naan bokkuñu ci dara man ak yow wala doo nit da ma jaay dalal rek bi yaa may dalloo yow doo nit wala nga am loo rax waaw ah, da ngay sóob waaw bu camaraay tàqoo moo loolu dégg koy woon déggoo ma sama yàqu nekku yow laa koy woon boo ma ko wanee ma def la loo am góor mosu la koo def da nga ma xaa sañ a wan Ah, yàlla baax na yàlla nañu yàlla may fekk ak tal. kontaan nañ ci yéen. mais dinaa la xamal lenn sa wax bi le quinze lay am. jërëjëf kontaan nañ ci yéen lépp ñu ko wax tey lépp Modou Faye fa Modou na caméra bi kay Modou Modou bëgg nañ la. lan ngay waaw maa leen nuyu di nuyu wasaare di nuyu yéen ñëpp maa leen nuyu boobu su limee dinaa juum di nuyu Khelcom automobile bi nga xam ne fa lañ nekk di fi defee signature bi ñu ngi leen nuyu bu baax di jaar ñaari mbër muy Kaaw muy Baye Mandiaye di jaar suma waa suma soppee soppe muy Saa Touba di jaar moor bu moor bu parcelle l'infatigable di jaar équipe xel go automobile bi yëpp ñu ngi di jaar bu baax. combat bi nag man dama ci kontaan parce que vraiment combat bi ñu ko bëggoon bëri na coow li bëri woon na si am Baye Ndiaye andi euh, andi kaw Gourdin coow li bëri si lool ñu ko bëgg bëri lool bu ñu ko yàlla jaglelee dañuy sant yàlla te lii ñu woon nii nii nii dal na suñu xel te neex nañu vraiment ñaari xale lan et te pare nañ. ku xam Baye Mandiaye xam ne champion la ku xam Kaaw xam ne champion xam nga te ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañu ay bërekat lañu te duñ tareel la amateur te gis nañ mobilisation si ñoom ñu ngi ñaan yàlla dafa leen jàmm ba bis ba ñu ngi leen di ñaanal nag coop mobilisation. ah. mobilisation mobilisation daal mooy sama xarit. waaw. <laughs> mobilisation yi daal ñu ngi leen si ñaanal yéen ñëpp. <laughs> yal na ko yàlla defal jàmm. ñaala ñaan bi neel ko ëpp ko yàlla defal jàmm waaw. neel ko ëpp yàlla may ndam. a ah, kon amin gis naa ne ah, am na loo xamante ni nag dinañ umb na kaaw am na am na bi ñuy waxtaan am na am na mëbét bu jël bi nga xamante ni wax dëgg yàlla mun xaaruma ko woon si ñoom. te jokkoo naa ak jàkk. wax dëgg yàlla daanaka liñ ko fay li si ëpp waxuma la waxuma la li si ëpp ay billet la koy jël soxla wut xaalis bi moom moo jaaga ngi nii taxaw moom moo ko wax li si ëpp nag laa la wax ci li ñu koy fay ay la lañ koy jox nañ koy jox benn somme bu ñu préparé te ku xam ba drapeau bi dinañ si ñëw incha allah mais lépp ñu ngi si ànd ak Saa Touba si liggéey bi rek incha allah jàpp leen ne Saa maarala maara la waaye Saa Touba promoteur a léegi <laughs> moo ngi si làmb ji jërëjëf <laughs> waaw waa di woo di di di woo tamit samay mbokk waa waa Foundiougne xam nga caare di leen woo bu baax waaw fi laa ñëpp di leen woo ñu jàpp ci ah di woo père père jaraaf waaw sa doom am na komba moo kaaw gourde ah père abibu tamit ma koy woo ci bis bi bu baax a baax père abu kama ma lay woo ci bis bi yawit waa di ñaanal ñëpp jàmm di wax gars yi rek ñu comprendre li làmb la quoi Kaaw du sama noonu mais dañuy neexal rek pour bis bi. sim nga di nuyu tamit suñu ménagère As maak moom ah ñoo ko bokk yaakaar naa. yéen bokk ménagère ñoo bokk ménagère suñu ménagère rek di wax As moom na toog. te xam ne lépp ñun ko gérer ma ak moom wax du am dara du am. di nuyu sama yaay sooy. yaa ngi dégg di woo tamit dawalkat sereet waa njett mbaar di leen woo di wax Kaaw nag benn affaire kii sunu nawle la. li mu wax noonu am na mbër yu ko waxoon ay damay jël temps bi boo demee laaj ko Fallou Ndiaye te du demee noonu man dama gëm doomu aadama lépp looy wax rek na nekk looy def quoi ak loo gëm. yaa ngi dégg di ko xam ne man moom bu fekkee suba moom paat la indi man géej laa indi yamuñu loolu moom moom xam na ko sax moom. yaa ngi dégg di ko xamee nag am na combat kaaw xas na lekk sama xaalis négociation amatul. parce que tamit oh, oh. dafa jël décision daan ma ma jël décision daan ko yaa ngi dégg ah. nogi si noxoma nogisation lay om amatul di nga ñaan yàlla suñu borom may ma ndam bu seddu guy ci kawam incha allah jërëjëf looy tàggatoo ñeen ngay woo Lamine di santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi di santaat suñu sëriñ sëñ Abib si bu ma Abdou Aziz si Dabaax di sant yàlla bu baax di santaat waa Dalifor bu baax a baax rawatina sama papa Diak bi ma àndal di ko bégee di leen bégee waat bu baax a baax di woowaat ñi nga xamante ne ñooy soppee Kaw Gourdin a nekk rawatina waa jaxaaw maa ngi leen di woo bu baax di woo sama commande ne mooy sama papa Père Tombe Sène ñoo ngi koy woo bu baax ak waa école de lutte Dalifort bi yëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk Fatick waa Njaay ñoo ngi leen di woo bu baax waa Passy ñoo ngi leen di woo waa Kaolack ñoo ngi leen di woo waa Touba ñoo ngi leen di woo bu baax waa Bambey waa Fissel maa ngi leen di woo waa Goudel waa Goudel maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bu baax a baax a baax waa ñi nga xamante ne carrément ñooy waa Caajaay tamit ñoo ngi leen di woo waa di woo waa Mourtani ñoo ngi leen di woo bu baax di wax Cheikh Sarr bu Kaaw Gourdin a ñëw. mafia laalaake bi. waaw fàttewuñ leen dañ ñëw jàpp ci combat bu baax saala saala yi ñoo ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci combat bi di ziar ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf di yàlla yàlla defal ñu jàmm mooy ñu ndam ci kaw Baye Ma Ndiaye. macha allah loolu am na solo rendez-vous